xol lay waxee ci bu muy àddu jëm ci lu ñuy dippee suite de couche mu gis ne yenn feebar yuñ ciy jëlee bayandiko moo ko waral mu nekk ay kàddu yu dippe ci ab bàjjenu gox. laa majeure parti dañuy wax ne man wasin naa si jàmm rek amatuma dara may dere mun na laa topp comme xëpp dere mun na laa topp ok infection mun na laa topp. suite de couche. mooy semaine yu topp gannaaw bu jigéen bi wasinee lu si gën a bëre ay complications moo siy feeñ lu si mel ni infection te ñu gën koo nemmeeku ci dëkku kaw yi enclavement ñàkk ak négligence bokk si li ko gën a waral. te ñun dañuy liggéey ak ONG di ñaan la sensibilisation ñu sensibiliser si loolu lañ dëkk mais des fois y la part de négligence ak moyen ñeneen ni moyen la ñeneen négligence la parce que jigéen bu ëmbee bu gisul mbaax rek war naa dem hôpital. mais mun nga fi toog 4 mois demoo hôpital ma 5 mois nga naan suma jëkkër euh, amul xaalis moo tax demul. beneen laaj di sampu mooy ndax pratique traditionnelle yi mën nañu am impact si bile phase critique. si la femme accouchée si on la libère. da ngay gis ko si wasin ñu bindal ko ordonnance mais buy génn hôpital bi di dem jëfandikoo. garabu wolof bu ñu ñëwee ba gis loolu si lañ ne docteur yi ku jëndatul garabam bu mu génn hôpital bi wante nag am na si ñuy feebar te duñu dem hôpital ñu wekk ko si ñàkk xaalis. personne dit ça ngir wérgu yaram yaay ak doom tayyiwuñu benn yoon di ñaax askan wi si diwaanu Kolda waaye nag lu gën a bëri réalité locale yi ñàkk enclavement ak négligence mooy neenal jéego yuñ ciy def.